jërë ngeen jëf mbokk ñi suivre ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di am mbégte jàkkaarloo waat ak yéen di leen nuyu di nuyu suñu kilifa diine ak suñu kilifa aada yi di leen nuyu suñu chaîne leader bi di people di ñaanal suñu woy dawlu yi yàlla sunu borom yërëm leen di ñaanal ñi nga xam ne caabi da leen féete ginnaaw yàlla may leen indépendance ba ñëwaat seen njaboot tey nag ma dalal suma suma patron suma suma mag suma xarit suma directeur vraiment muy Tange kenn dootu ko présenté ci réew mi mu nekk ku disponible aussi tamit bi ma ko woowee yaakaar naa nee na ma yow sama frère nga du ma la bañal dara saa yoo ko bëggee ak foo ko bëggee rek ñëwal moom laa daral fii ci People 221 dañ lay bàyyi nga nuyoo ñu lay suivre. waaw di la nuyu di leen ziar sama mbokk taalibe sama xarit sama doomu ndey nit ku baax. guy gi quatre-vingt-quinze am mbégte ak bànneex lool toog jàkkaarloog yow. di nuyu képp koo xamante ni jamono ji internet nga yaa ngi suivre euh, People 221 maa ngi lay nuyu di déwénati Sénégal yëpp ginnaaw korité bii ñu jógee di baalu àq ñëpp di baal ñëpp di ñaan yàlla may ñu ñu teewee ay déwén yi mm-hmm. am na solo ci euh, coow li nga xamante am na fan yi muy journaliste yi nga xamante ne nañ leen Babacar Touré yaakaar naa sànq ngi gis ci euh, ñu bind ni dañ koo def mandat dépôt ak yeneen journaliste yi nga xam ne ñoo a wuy ñi ngi gis ni que am ay journalistes yoo xamante ni ñi ngi leen di woo ci yoon. Hmm. yaakaar naa ni képp ku yoon woo rek da nga war a dem wuyu hmm. ku nekk ci dëgg. waroo tiit waroo ragal. Hmm. muy Babacar Touré xewloo. kenn yéenew ko safaan lu baax rek lañ ko yéene. muy Moustapha Diop lu baax lañ ko yéene. muy bépp journaliste boo xamante ni yaa ngi yeewu suuf jàmm rek lañ la yéene. waaye su ñu nee journaliste. nul n'est au-dessus de la loi. kenn nekkul au de la loi balaa ngay doon journaliste nit kese nga. tey nit ñi jàpp ni ñuy woowee say morom ñu dem di wuyu ji ñeneen yi di wuyu ji parce que yaakaar naa ni ku deful dara kenn du la woo. ku def dara la ñuy woo yow tey kenn woowu la. am na ñeneen ñoo xamante ne tey ñu ngi ci rédaction yi kenn woowu leen mais lenn rek lay déplorer parfois ñun ñu nekk ci médias yi ñun dama ciy boole sama bopp dañuy foog ni ñu ne on est au de la loi. war nañu def lu ñu neex war nañu wax lu ñu neex ba pare yoon suñu woowee ñu taxaw ñu ne justice bi wala dañu privé liberté d'expression kenn privé wu ñu liberté d'expression parce que liberté de la presse bi am tey Sénégal gisuma ko ci ay dëkk yu bëri ci Afrique parce que dama dem ci ay dëkk yu bëri Afrique journaliste suñ koy wax éthique ak déontologie moo tax ñu koy wax informer juste et vrai uh-huh. li ngay wax nga am ci ay sources am ci ay preuves yu nañ mais soo yëkkatee ay wax waxuñu journaliste nga def diffamation waxuñu journaliste def ay calomnie waxuñu journaliste nga yëkkate ay wax yu ñaaw di ko teg ci doomu aadama ndaxte soo jëlee wax yooyu nga jël ko wax ji ni nga ko tàmbalee nga ne wax ji kat maa ngi koy teg ci Tange nga teggi Tange teg fa sa papa nga xool ndax di nga ko xool doo ko wax mhm. wala nga xool ni que kii sama mag la wala kii dama bokk ak moom wala kii sama nit la dinaa ko xool du ma ko wax yaakaar naa ni ñu def dara moom la ñu woo ñu deful dara kenn woowu leen ndaxte plateau yi bari na TFM mi ngi fi 2STV mi ngi fi Sen TV mi ngi fi 7TV mi ngi fi Lampa Fall TV mi ngi fi ñu leen sénégalais yi nag yéen a ngi ubbi seen bët di seetaan journalistes yi tamit professionnels yi kilifa journalistes yi ñu ngi ubbi seen bët di leen seetaan association yu ëmb journalistes yi muy SYNPICS di SEDEPS ñu ngi ubbi seen bët di leen seetaan yaakaar naa ni solidarité day am ci presse képp ku ñu jàpp ci journalisme ñun ñëpp dañu war a solidaire jàppale ko mais du caagin ka dafa nekk ci dëgg du caagin ka nekkul ci dëgg. du ñun ñooy jugé yoon mooy atte ndaxte tey soo ma sitalee kaaw Babacar Touré chef d'inculpation yu ñu ko teg dafa yëkkati ay kàddu teg ko ci nit nit kooku mu ko yëkkati sénégalais la dafa am famille am njaboot kooku su gisee ni que kaddu yi diffamation la du dëgg su yëkkatee kaddu yi calomnie la du dëgg am na sañ sañu porter plainte te su porter plainte journaliste boobu dañ koy woo nul n'est au-dessus de la loi ku nekk ci dëgg kenn du la woo gis nañu yeneen dëkk yi nu ñu fay tëjee ay journaliste am na benn journaliste boo xamante ne Comore soo fa demee ñu ngi ko tëj ci kaso yi pendant cinq ans xam nga lan la demoon manifestation boo xamante ni kenn autorisé wu ko autorisé wu ñu manifestation mu dem fa ñu ngi ko tëj ci kaso bi pendant mm-hmm. li tey euh, avocat Ousmane Sonko bii fi ñëwoon. muy mm-hmm. Sat Larifou di opposant Azali bu comorien bi. Mm-hmm. moom ci boppam ñëw na ci man jox ma article yi parce que maa moom xamante ne dama koy jàppale ci lu bari ci wàllu liggéeyam. Mm-hmm. donc yaakaar naa ne journaliste yi ñu arrêté dañu dépassé limite journaliste parce que journaliste aussi dafa am limite dafa am li nga war a wax am loo warta wax. ñun ñu ngi nii am na yoo xamante ni yu bëre xam nañ ko tey wala am na yoo xamante ni xam nañu yoon may nañu sañ-sañ ñu wax li wala wayu ma sañ-sañ ñu tey lu mel ni un dossier qui n'est pas rendu en public. journaliste amoo droit publier ko. tey journaliste su ko publier yoon teg ko loxo sénégalais yi taxaw ñu naan acharnement la wala nangam sangam la jàpp ma loolu. journaliste da nga war a neutre journaliste yi neutre yi tey kenn woowu leen mais dafa am ñoo xamante ni neutre ñu dañu wane seen partisan nañu teggi mbubbu journaliste bi ñu xam ne ay politiciens la ñu wax ci baatu politicien mm-hmm. tey nag yéenewuñu ko Moustapha Diop yéenewuñu ko Babacar euh, kii Touré Kewulo yéenewuñu ko Coro Mandela mais tey ñoom ñu ñu jàpp ñëpp. dañu fekk seen loxo ci loo xamante ni yoon da koy tere parce que yoon tëb tëbul woo leen de nit a dem porté ji plainte mm-hmm. tey man su ma la tooñoon nga porté ma plainte mm-hmm. yoon dafa may woolu te tey ñoom ñëpp koo ci woo dik kum ci convoqué nga rendre ko publiquement à la presse woo nañ ma bës sàngam woo nañ ma bës sàngam man Tange Tandian bii di wax ak yéen ñaata yoon la ma dik convoqué mm-hmm. diggante janvier bi ma ñibbisee ak février bi ma ñibbisee Sénégal ñaata yoon la ma dik convoqué ma dem wuy dik ñibbisiwaat parce que laaj nañ ma may laaj la leen war a tontu tontu na rek dugaluma ko ci presse dugaluma ko sama site internet. sama waa kër sax xamuñu di convoqué na ma man maay xëy suba teel dem wuyu donc pourquoi di convoqué na la nga jël ko bind ko ci presse bi woo nañ ma jeudi woo nañ ma nangam su la leeree amoo dara looy reproché sa bopp. tooñoo ma Samba tooñoo ma Demba da ngay solu ba jekk dem ñu posé la question nga laaj nga tontu. Sénégal dëkku dëgg la justice liggéeyam lay def amul benn acharnement boo xamante ni ñu ngi koy def tey nag lu mel nii mooy indi tension bi ngay wax te du tension politique tension sociale lay indi. parce que suñ demee ba ci presse bi ku ñu convoqué alors que moo tooñ alors leen que kii kat moo def lii wala moo def lee ngeen ko dugal loolu ci askan bi day indi tension sociale. je crois que nul n'est au-dessus de la loi muy association presse yi on est on a le droit d'être solidaire jàppale nit ki man tey soo nekkee suma xarit soo rayoon nit c'est condamné mais damay naan guy gi quatre-vingt-quinze sama xarit la moo rey nit mais dama koy soutenir mais du ma nee guy gi moo nekk ci dëgg ñu wéetee dama lay wax dëgg kon loolu laa bëgg ñu delloo si ko di ko xamal képp ku ñu convoqué da nga nekk sa biir kër taal sa caméra di yëkkati ay kàddu yoo xamante ni tegoo ko fen yoon mayu ko éthique mayu ko déontologie mayu la ko ñi éthique ak déontologie may ñu ngi wax te kenn woowu leen seen TV nga ne kenn woowu fa kenn. Euh, TFM kenn woowu fa kenn 2STV kenn woowu fa kenn RTS kenn woowu fa kenn tv kenn woowu fa kenn pourquoi journaliste Walfadjri kese la ñuy woo parce que ñoom dañuy toog ci plateau bi fàtte ni que ay journaliste lañu ñu jël benn mbubu partisan di ko téye tey ku mel ni Pape Ndiaye mais lu tax ñu téye ko dafa toog carrément ci plateau ma dégg ko ne dossier Ousmane Sonko bi magistrat bi ak juge bi nee nañu Macky Sall moo leen wax lii. est-ce que moom am na ci preuve est-ce que magistrat moo ko wax est-ce que loolu dëgg la est-ce que tey mën na firndeel loolu am na loo xamante ni tey soo ko mënul firnde doo ko wax ci tele doo ko wax ci rajo. Hmm. parce que information bi ngay joxee jàppal ni ko soo ko sànnee balu fetal la xas na bëgg génn. donc soo dépassé loi nag yoon da lay teg loxo. diffamation délit la calomnie délit la injure publique délit la mètre en danger la vie d'une personne délit la te tey gis nañu ci Sénégal presse bi dañuy def ay délits yu garaaw te gis nañu tey kañ la ñuy solidaire su ne féetee fenn. pourtant journaliste TFM dem na fi di couvrir manifestation place de l'Obélisque ay booy yu Pastef taxaw di ko yuuxu di ko bëgg a mais gis nga wal Fadjri kenn ku yëkkati moo ci plateau amul kenn ku ko soutenir pourtant ñenn ñaawlu nañ ko ci ay plateau ñaata journaliste ñoom ñoo fi am ay problème est-ce que jëkk yëkkati nañ ci seen awo mais lu rax tuuti politique gars yi génn pour bëgg ko politiser gis nga journalisme métier bu noble la maam Less Camara dafa am lu mu ñu jàngaloon lépp looy yëkkati di ko wax wala di ko bind jëlal sa papa nga teg ko foofu lépp loo xamante ni sañoo ko teg ci sa papa doo ko wax. man maa ngi nii bañ fi sama jabar génnee samay audio ñu ñëw tas ko pour pourtant Walf Fadjri ñoom ñoo nekk ci plateau yi téye ko gauche ak droite yëkkati parce que boobu maa ngi wax ci loo xamante ni peut-être arrangé wul Ousmane Sonko xëy am na ñoo xamante ne ay partisans Ousmane Sonko lañ ku ci mel ni Soyoubou toog na ci plateau bi amul lu mu waxul ci man ku ci mel ni Sanjogo amul lu mu waxul ci man et pourtant kenn jugu ci ngaañ ko te pourtant li ñu wax ci man yëpp amul dara lu ciy dëgg parce que ñu ma A ñu ma B mais lan lañ jëloon campagne de jabolisation waaye nag li Wally Seck woyoon laa leen di wax di nga jéngaw dooda waaye doo daanu di nga jéng waaye doo daanu lu mu métti métti damay jéng waaye du ma daanu ñu bëre foogoon nañ changé daanu ginnaaw yàlla ak yonent bi ak samay ñaani waajur ak sama wasila sëriñ Saliou Mbacke ci dëgg laa nekk ci yàlla moo bëgg a dëgg te dëgg boobu kese moo may yëkkati saa su ne kon donc nul n'est au-dessus de la loi fa ñu nekk nag yéenewu ñu leen ko amul benn sama mbokk sama noon bu gën a métti yéenewuma ko sax yoon woo ko di ko convoqué mais ku nekkul ci dëgg dañ lay teg ci yoon suñu bàyyee lii anarchie lay indi suñu bàyyee lii guerre civile lay indi ci Sénégal donc yoon daf fi nekk pour diriger pour mettre koo xamante ni da nga jalgati yoon ñu teg la ci yoon képp koo xamante ni jalgati woo yoon yoon woowu la kon ku yoon woo demal nga wuy yi am nga say tontu yu leer li nga wax am na foo ko teg soo tegee ay firnde yu leer dañ lay bàyyi nga ñibbiwaat mais soo amul ay firnde yu leer fi ñuy jaarale say morom lañ lay jaarale mais soo demee rëbës ñaata ñoo fa nekk diffamation moo leen fa tëj bërki démb ñaari journaliste Sen TV am nañ fi problème diffamation faat Abdou Ndiaye ak euh, ndey Dimé Ndaw et pourtant gisoo kenn ku ci wax et pourtant ay journaliste la ñaari journaliste pour pourtant dem nañu ba ñu jugé leen Aïssatou Diop Fall mi ngi ni tey ñu renvoyé procès moom ñaari employé ay journaliste ba le 10 gisoo kenn ku ci wax donc ñi nga xamante ni ay partisans politiques lañu lu neex Ousmane Sonko lu neex Pastef moom lañuy ñuy wax donc ñoom ñooy nekk di dérivé di deux alors que nag le journaliste doit être neutre da fi war a nekkal ñëpp soo demee ba nga xamante ni mënatoo neutre teggil sa casquette journaliste nga nekk politicien am nga droit euh, na damp naa ne ku nekk mi ngi ci waaram di bay waaram mhm. ku ci nekk la nga war a def yaa koy def Wally Seck li mu war a def mi koy def El Hadj li mu war def mi ngi koy def Tarba li mu mhm. war def mi koy def Viviane li mu war def mi koy def Kumba Gawla Seck li mu war a def mi ngi koy def ñeneen ak ñeneen mën naa citer te du ma fi jógee mhm. donc showbiz bi amul tension Youssou Dieng du musicien Youssou Dieng du waykat Youssou Dieng bokkul ci orchestre Wally mais ci staff Wally la kilifa la moo ko jiitu ci aar bi da koy gunge di waxtaan ak moom Youssou Dieng su ne bàyyi na Faramareen xëy na yéen mën ngeen ko déggee bàyyi na Faramareen Faramareen jàppale ni aussi du label Faramareen du label structure la ren. parce que Faramareen produit deful dara du label structure la. mais Youssou Dieng ak yi toujours ñoo nekk ensemble. Mm-hmm. Youssou Dieng ak Waly Waly su soxlaa conseil si Youssou Dieng léegi da koy woo ne ko Youssou lii ak lii laa soxla. Mhm. Youssou su gisee Waly def nag su noonu da koy woo toujours ne ko nii la nii laa bëgg nga defee ko waroo defee nii waroo defee Youssou Dieng su gisee lu war a dem ci Waly léegi da koy wax. kon Youssou Dieng su def waxee loolu je crois que technique de communication la boo xamante ni utiliser na ko am na lu bees lu mu bëgg a bëgg na loolu siiw mu jaar rek yéen foofu. Ah. mais xam nga tey site yi comprendre ñu tey man su ma bëggee nit ñi déglu li may wax wala li ma bëgg def gars yi bàyyi ci xel donc damay créer benn moom chaque jour. parce que Youssou parce que bu génnee ba tey a ngi wax ci moom. Youssou dafa tàmm loolu loolu la ak soxna Bateur donc jàpp naa ni que technique de communication la mais Youssou Dieng toujours mi ngi ci biir Wally comme nu mu leen ko waxee aussi ma ngi créer ay structure ay yëfu boppam di ko doxal mais teewul chaque jour fu ngeen gis Wally di ngeen gis Youssou Dieng ci ginnaaw d' accord ba tey damay def ci waale Ameth Thiou Ameth Thiou moom xanaa mënoo ko rafetal Ameth Thiou moom mënoo ne Ameth Thiou bala maa ñëw li xew ci biir ak yim noon kaas naka nga jàngee naka nga jàngatee sorteem bi Ameth Thiou jàngatewuma sorteem dara lu dul que journaliste yi ak site internet yi ñoom ñoo sob Ameth Thiou lu mu séq ak Waly Seck journaliste yi xamuñu ko. Mhm. Ameth lu muy wax Waly Seck Waly Seck lu muy wax Ameth Thiou ñi yor site internet xàmmeewuñu ko ñi bëgg a buzz nag bëgg a vue ñoom ñoo koy nekk di yëkkati tole man jàpp naa ni que diggante Ameth Thiou ak Waly Seck mën tam réeroo ndaxte Ameth Thiou balaa Waly mook coon balaa ko Seck la woon. wax na leen ko Waly Seck doomam la je crois que junj doy na borom xel. fan yële passé toogoon nañ fi naan Ameth ak Waly Ameth Thiou ak Waly Ameth Thiou ak 27 euh, janvier bi passé je crois que mooy polémique bu indiwoon Baara Mundi ak hmm. euh, euh, moom ak Pape Diouf Ameth Thiou bu mu ñëwee dafa yéeg ci kaw seen bi way ba pare kott waali jooy hmm. ne Ramdaan sama Ramdaan la hmm. kon yaakaar naa ni jeexal na wax Ameth Thiou moog waali benn lañu donc Ameth Thiou su waxee dara waali kenn gisul waali def sorti ne Ameth Thiou ma wax mais ñi ñi daan waali dafa mere Ameth Thiou waali kontaanul est ce que ñoom ñoo dégg wax waali wax ko cest à que dañuy gis waali ci kaw seen mais xamuñu kan mooy waali gis nga Ramadane ni mu leen ko waxee famille la Ramadane famille la donc famille boobu journaliste xaju ci képp ku bokkul ci Ramadane mënoo ci xaj ba ciy bokk ñoom xamante nañu seen biir la ñuy waxante seen biir xam nañ ko ku ci nekk la nga war a génnee xam nañ ko mais jàpp naa ni que Ameth Thiou ak Waly Seck amuñu benn réeróo. mais dañu gis nag Ameth Thiou waxee waxee waxee waxee benn ton boo xamante ne nii. vraiment daf ko naqari que ni booy bi gisuma lu mu musul waxee ah booy bi gisuma sama bopp ci moom booy bi wax. waaw loolu moom am na ci droit gisul boppam ci moom est ce xam ngeen ban côté lay waxee gisul boppam ci moom. kenn xamu ko kon donc posé question ban côté lay waxee gisuma sama bopp ci moom xëy na wax la boo xamante ni moom Ameth Thiou kese moom moo ko mën a décortiquer mais lenn laa jàpp rek Ameth Thiou ak Wally Seck amuñu benn problème Wally du mës a mere Ameth Thiou Ameth Thiou du mës a mere Wally ndaxte Ameth Thiou soo. daggoon tey yaramam deretam da nga ciy fekk Wally Seck Wally soo daggoon yaramam da nga ciy fekk tey Ameth Thiou ñoom xamante nañu bu baax a baax Wally nit la koo xamante ne Sénégal yi dañ koy seen mais comprendre ñu ko boolewul ak dara ak wax saa su problème amee site internet yi ngay dégg wala ñenn ñi ko wër wala ñenn ñu bëgg a bokk wala ñenn ñoo xamante ne bëgg nañu Wally bàyyi leen xel ñoom ñoo ciy nekk di wax te ci guerre ga jeexee ñoom ñoo ci rus parce que dañuy gis Wally ak Ameth tey ñi ciy wax suba dañuy gis Wally dëgg ñu gis Ameth ci kaw seen lan la ñuy wax lan la ñuy wax donc jàpp naa ni problème amul showbiz moo demee noonu nit ku nekk am na sañ-sañu waxam tey Ameth Thiou bu mu nee Wally kontaanuma ci moom pourtant site internet yi valoriser nañ ko et pourtant Ameth Thiou su waxee lu baax ci Wally wala keneen wax ci lu baale pourquoi site internet yi duñ ko valoriser dafa mel ni site internet yi ñoom ñoo bëgg lu négatif ñoom ñoo bëgg a coow ñoom ñoo bëgg problème am fenn mais leen laa ko jàppee coow amul ci diggante Wally Seck ak Ameth Thiou mais xam ne am na ko Ramdaan moom la ne mooy Ramdaan mooy mu am Ramadane ba tey jii moom la fa man li ma lay wax dama ko xam bu baax a baax. nekkul la wax taamu ko. a xam. muy def distinction Ramadane ak Faramaren. nee naa leen far Faramaren ñu bëri dañuy foog ni label la du label structure la. tur la ret parce que sekkeen ñoom ñooy faramareen moom lañ leen di dàkkantalee comme man tey ni ma sante Tandian ñi ngi ñuy dàkkantalee Tandian Fatama comme tey ma créé VIP pour ma ne Tandian Fatama Faramareen du sis du euh, label du dara structure la am na ñoo xamante ni ci concert amee ci wàllum njaay billet lañ leen sédd am na ñoo xamante ni ci wàllu décoration am na ñoo xamante ni ci wàllu logistique lañ leen soxla mais Ameth Thiou c'est un danseur Ameth Thiou c'est un chanteur ñu ngi ko soxla ci ram Ramadan ci kaw seen lañ ko mën a gisee. mais tamit ci ay waxam ci ay waxam tamit bërki démb la déglu naa ko tamit muy wax di expliquer que ni man xam nga foo xamante ni sans sans sans feccikat mu ngi fa. saa kat mu mel ni moom dafa xaw a xat ci chaîne bi parce que mu ngi naan man nekkul ni Wally fu mu xewle rek laay dem bu dara xewee loo xam ne événement mag la ci ngeen may gis Ameth Thiou nee naa la mënul xat biir Ramadan Ameth Thiou daanaka danseur la mais la muy fecc ci Ramadan ëpp nay at néew na gis nañ ko dernière minute lay ñëw yéeg parfois dafay aw li Mbaye Sy Ndiaye di def Ameth Thiou da koy def Ameth Thiou day génne ay albumam ni Wally di tëggee ay concert Ameth Thiou day tëgg noonu ay concert am na benn concert boo xamante ni ñu ngi ko doon tëgg en Europe mais instant boobu Ameth Thiou ngi waroon tëgg Genève mais dafa dem tëggi li muy wax xam na ko bu baax a baax journalistes yi ñoom ñoo comprendreul fu Ameth Thiou ñëwee ñoom ñoo problème dafa am seen diggante mais problème amul seen diggante communication la te Ramadane dañoo am ay langage codé yoo xamante ni ku bokkul ci ñoom wala miinoo leen doo ko xam lépp lu mu leen di jàppal lu Ameth Thiou wax langage codé la mais Ameth Thiou ak Wally dara doxul seen diggante te benn xaar ma yàlla nekkul seen diggante lu leer laa la wax. Wally Seck jëm ci événement bu mag lu yi li koy yàqal jamono jii du ma nee amut mais du gaaw. kon xam nga yaa ngi wax benn salle bu mag muy Dôme de Paris gis nga doom de Paris boobu bi ñu koy waaj ki ko waaj gis ma jaxite maag moom dañ ci waxtaan lu yàgg dama ko ne woon Waly balaa muy dellu si Paris dañ ko yóbbu Dôme de Paris. barki dem bi ma woowee xam la laa ko ma ne ko bu ñu communiqué ci ay Waly day ñëw jouer Paris parce que salle bi fees na ba pare 5500 places lay jël Dôme de Paris 5500 places fii may wax ak yow tey ñu ngi lan avril jàppal ni que salle bi fees na ba pare te jour soirée ba da nga gis ñoo xamante ne amuñu billet. ma ne ko nañ def affaire bi mu doon benn événement doon benn spectacle parce que Paris dafa gëj a yëngu man ku yàgg événement la biir Paris nañu créé benn engouement sénégalais yi dajewaat ñuy jógee Londres ñuy jógee Suisse ñuy jógee Angleterre ñuy jógee bi euh, mooy euh, Suède ñuy jógee Allemagne ñuy jógee Espagne ñëpp ñëw ñu dajee famille ñu doon famille sénégalais yi ñu créé waat benn symbiose boo xamante ne da doon am loo xamante ni ñu ngi ko doon gis ay Zénith di ko gis Bercy di ko gis ci ay concert yu mag loolu laa bëgg ñu créé ko ñu créé benn engouement créé biir plateau Paris dunduwaat loolu la ñuy def mais Wally jàppal ni ko doom de Paris bi ñu jëm le 3 amul wax bu mën a yàqal Wally ci dara amul dara lu koy yàqal pour jox la firnde publicité yi ngay seetaan fan yi yëpp le 29 ana kuy joué Wally Bercy fan Malika le 6 kuy joué Bercy Pikine wa euh, Waly euh, Bercy Parcelles ku koy joué Waly euh, Renaissance bi ñuy joxe diplôme ku koy joué Waly kin fat place yaakaar naa ni li Waly dajale ci at bi amul benn artiste bu ko fi dajale Youssou Ndour mooy le mentor mooy tête moo nekk ci kaw li Waly joué sax Youssou Ndour joué ci at bi ci ay contrat parce que moom la ñu jox confiance moom la ndaw yi bëgg xëccoo comme tolli si Wally Seck bu génnee bu génnee wax ne Wally Seck kontaanu mu ci moom. Mhm. wax allah spectacle Dôme de Paris. Ameth Thiou moo koy def Dôme de Paris incha allah le 3 juin. mais man maa leen ko ci people 221. est ni aussi tamit tey waxtaan yooyu noonu bu demee tey ba koy wax ci ci Wally jotul tamit comme moom Ramdan moom dafa taxaw taxawaay Papa Thione mu dem ñu waxtaanee ko en famille moo gën muy génn publiquement di ko wax. waaw côté boobu dama ciy ànd ak yéen comme ni ñu koy wax le linge sale ça se en famille am yoo xamante ni su amee. bu la journaliste dugal wala poser la question am noo waxee peut-être nga wax benn wax boo xamante ne après dañ ko yóbbu ci beneen sens. Mhm. man bëgg naa peut-être xëy na su kontaanul si Wally moog Wally dañuy gisee am na su bëggoon gis Wally léegi day dem kër Wally soxlawul rendez-vous soxlawul dara te vigile du ko téye day dugg ci biir wax li muy wax Wally moog Wally ñu waxante ko ñu génn dem seen côté boobu aussi d'accord naa ci que yenn problème yi ñu bàyyi di ko seen biir te yàgg na ko wax. Wally yàgg na ko nee na ko ñun suñu déggoo suñu biir xamante suñu biir lu ñuy waxante ñu waxante suñu biir billaay wallaay kenn ñu mënal dara fii ci Sénégal rawatina ci showbiz ba ci musique xëy na problème bi foofu la nekk yenn wax yi parfois day senn di génn côté boobu rek laay déplorer maanaam la leen sal ça lave en famille xëy na ni mu ko waxee ak xëy na journal ni mu ko posé question mënoon na ko ko bañ a waxee foofu mais man jàpp naa ni Ameth Thiou mi ko wax sax waxeew ko sax tey sens bi ko Sénégalais yi téye parce que Ameth Thiou ku ko xam laa man dama koy fréquenté dañuy ànd dañuy dugg te bi may ànd que boobu waali xewul est-ce que du dafa am xatalaan ci seen biir parce que ñi ngi gis ku nekk bu génnee naan Wally Seck ñi sax dañ koy liggéey pour mu gën leen a bëgg ñii di wax naan Wally Seck man la gën a xam est-ce que amul liggéey amul est-ce que amul xatalante ci seen biir ñoom biir Faramaren xam nga xatalante soo amee moom waa Faramaren kese ñoo la ko mën a wax waaye man mii li ma gis Faramaren gis naa ñoom ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ndaxte ànd naa ñoom bokk naa ak ñoom dëkkukaay fanaan ak ñoom yend naa ak ñoom lekkandoog di añandoo di naanandoo di bokkandoo lépp kon gëm naa ni Faramareen xeexante amul ci biir ñoom ñëpp famille lañu ni ko Waal di waxee famille la Ramdaan famille la Amady Badiane confirmé na ko ne ko Ramdaan famille la man gëwuma xeexante am na ci biir xëy na nag ñi nekk ci biti amuñu place ñoom ñooy jéem a créer benn zizanie et loolu c'est partout people 221 bii ngeen nekk tey suñ la gisee ñi favoriser la dina am ñu nekk ci bunt bi commencé indi leen ci fa ma nekk ci millier média bi milieu presse bi ñaata nit ñoo ma fay xeex. ñaata nit ñooy naan pourquoi ñuy dégg Tange kese pourquoi Tange ci yóbbu bës bi et pourtant dañ may nuyu di ma naan salaamaaleykum te xam naa ni tey suñu yoroon paaka ñoom ñoo may njëkk a jam wala suñu gisoon ku may rey ñoom ñoo koy jox paak et pourtant tey laa leen gën a jàpp loolu c'est Sénégal ni mu amee ci musique bi noonu la amee ci politique bi noonu la amee partout mais jàpp naa ni ñoom si seen biir en famille lañu ña ca bokkul nag juux ci ñoom ñoo ciy nekk di créer ay zizani di naan ay xeexante dama am fii wala kenn su demee si kii naan moytul kii wala moytul kële. Hmm. man jàpp naa ni que lu dul yàlla neen la Wally Seck suñ ko mënaloon dara faagaagal nañ ko bu yàgg hmm. ndaxte liggéey du ku nekk lay jàpp hmm. liggéey du ku nekk lay jàpp gis nga ñaanu waajur dafa am solo te Wally ki ne jaaga daf ko ñaanal Wally sénégalais yi dañ ko ñaanal Wally la muy def ci lu baax su ko yàlla fayee xolam ci loo rek nit dina jóg sax pour def ko dara yàlla faagaagal loolu am na solo am na ma am mbégte jàkkaarloo woon ak yow ci sama kër euh, tey lan ngay tàggatoo ci émission bi. waaw di la remercier di la gërëm di naan nit ku baax nga fi nga ko jàpp foofu la. People 221 maa ngi leen di suivre. Mm. yéen a ngi ci yoon bi li ma leen di ñaax rek. bu leen yàkkamti bu leen fëq yóbbu information bu ngeen mën a génnee vérifier leen ko ba mu leer leen ndaxte journalisme métier bu noble la tey su demee ba nga xamante ni kenn respectul journaliste parce que ñi ci juur la maanaam télé ci poche xëy suba ubbi sa compte YouTube yor sa téléphone sa poche. Hmm. manifestation soo amee nga taxaw ci biir commencé di sararaare di xool lu neex di wala neex ma sàmba journaliste da nga a noble yaakaar ci yàlla a baalu ak aussi ñëpp xamal ni que lépp lu ma fi wax su jubee xam leen ni yàlla suñu borom la su dëngee xam leen ni man kese la muy Tange Tandian nit ku dul juum laa jërëjëf di leen gërëm di leen sant it naan bonne continuation à très bientôt. merci maa moon mbégte jàkkaarloo woon ak moom xam naa du guddal di sant ñi nekk ci équipe bi yëpp ak ñi nekk ci régie bi di yeneen émission fii ci people 221 jëf.